site d'information sin TV nekkee fi ci diwanu fatik un leen lu bees les plus lu jëm ci walu sport culture éducation santé ba ci politique wala sax information ñu leen di proposer ay vidéo yu muccu ay bi nga xamantene da fay top lepp lu jëm ci walu actualité sin TV nek fi ci diwanu fatik togal fi région bu fatik ak Sénégal Sine TV joko c'est Maïsa Fall membre de l'APR et de la coalition Benno Bokk ñu ngi gis ni on a fait le constat constaté nañu ñaa ngi ñëw ñu ngi voté ñu ngi dem ak a ñëw vraiment gis nañ mobilisation Fatick mobilisé nañ génn nañ ñu ngi def seen acte devoir de Séné ñu ngi koy def bon depuis fi taxawee ba loolu laa constaté quoi. pour le moment mun nañ am yaakaar bu baax ñun génn nañ ñun doon génnee mais xam nga fii moom Fatick gars yi dañu am bu ñuy ñëw dafa matin très y avait il y avait une foule ici il y avait pas il y avait beaucoup beaucoup de monde bon gars yi ñëw nañ dem nañu mais heure bii dafay xaw kalm ak naaj bu tàng bi mais ci kanam xam naa vers 16 heures jëm 17 heures nga gisaat fii fees dell effectivement xaw ma fan mais Fatick moom bon dinañ ko gagné comme niñ ko doon gagné am nañ ci yaakaar bu baax a baax a baax parce que dugg nañ ci bureau de vote yi xool nañu également euh, caisse bi xam nañu ne vraiment man moom xam nga dama xaw a dégg comme dañoo bokk ci responsable yi bu ñu duggee dañuy xool jëm baay xel ci lolu xoolaale ndax bulletin amul Ba bëri ci mbalit mi wala bëri fo mais constaté nañ ne Sénégalais ñu ngi koy fatik Fatick du moins ñu ngi koy voté ñu ngi koy voté massivement sincèrement parler pour dire la réalité. Euh, ambassadeur Sori Kaba responsable politique APR à Fatick. je pense que mobilisation bi depuis ce matin mën nañu ne am nañ ci satisfaction parce que biñu amé information par rapport ak nombre électeurs yi jot a à 13h30 déjà bi wax ni y a à peu près 40 de taux de participation ça veut dire qu'avant 18 h nous avons dépasser le cap des 50 Et ce qui est le la te loolu la campagne les électeurs mobilisés parce que plus nous mobilisons plus le vote sera favorable à notre candidat Moi le candidat Amadouba, nous avons am un au premier tour autant à Fatick qu'à l'échelon national ainsi qu'au niveau de la diaspora Waouh, waouh, waouh d'ailleurs nous ndog bi pour nous fatiguer on a donné rendez-vous à tous les fatigues pour nous faire une grandeur nature Nous fekkee ko ñu célébrer victoire bi inshallah. Euh, docteur Sandrine Diouf coordonnateur communal Rémi Fatigue. commune. Euh, de toute façon le matin on a installé euh, les représentants de bureau de vote mandataires aussi franchement nous nañ un document donc voilà, quoi. Le scrutin se déroule normalement, il n'y a pas de problème. Il y a franchement dans, un, dans une ambiance bon enfant. Et l'Olande Donyan Yalla, Yalla Defan C'est un scrutin qui se déroule à merveille. Waouh, waouh, waouh, waouh, waouh. Amna bon, Lolo, dynamisme, dynamisme, waouh. Parce que aussi, euh, il faut noter que la euh, coalition n'est pas am jeune. Ah, quoi, les gens pas me Donc, du coup, bon, voilà, euh, on les a inscrits en masse. Faire ñom ñep ñu jot sen carte d'identité. Bon, ñom ñep aussi ñu ñeu voter si. Donc voilà quoi. Donc euh, on attend les, les résultats fiak ben en espérant quand même bon, avoir une, une, une percée, une, une, très grande percée à, à Fatigue, Inch'Allah. Ah, Maïssa Maïkot Diouf, adjoint au maire à la commune de Fatigue, et directeur général Safri. waaw d' abord nga permettre ma nga permettre ma d' abord ma euh, rafetlu ñëw président Macky Sall ak soxlam ñu yëkkati fi ay kàddu yu am solo ñuy rafetlu également waa Fatick nañ leen delloo njukkal tey dama kañ leen tàccu leen ti loolu li koy waral rek mooy diggante bu rafet euh, diir ñu fi nekk yëpp taxaw nañu askan wi jàppale nañ leen Fatick waaye aussi lépp lu ñu mës a bëgg jox nañ leen ko. je pense que tey y avait beaucoup d'émotions mais lolu day wone rek ne jàmm ak salam rek lañu mës a ñum ci lolu moy moy law bu faw bu lolu weesoo ñu ngi rafetlu bu baax euh, mobilisation des populations ñum ñep euh, à l'image du pays hein nit ñi tel nañ jog biñu ñu ba paré De accomplir sen devoir civique et citoyen euh, ti kuñ ci ben problème vraiment bo xolé ne le di nga gis mandataire u Idrissa Seck moo tax ak mandataire Benno mandataire Dethi Fall même famille ku nekk ngi def li la war eh, amul ben problème je pense que lolu aussi lu ñu o Senegal, perpétuer un peu partout au Sénégal la en tout cas ñu ngi ñaan Yalla ki nga xamantene mo gën réew mi ah mo gën Sénégal nako Yalla jox réew mi ti am nañ ko sunu candidat lay doon non non ce n'est pas la première fois Il ne faut pas ñu créer problème amul problème Nous xam au niveau du centre tous les mandateurs dañuy di am aller retour ak les représentants du bureau de vote Si vous ci des mandataire Idrissa Seck mu nga fa mandataire euh, Fall la donc ici, il rek a fi am sont gis ko ci donc bu créer fu problème amul. Nous, au Sénégal nous avons voté nous nañu on a une tradition démocratique donc nit ñi li leen war ñu koy problème Pape Babacar Faye président directeur général Holding Faye responsable politique APR à Fatik. waaw comme d'habitude comme xam nous ñun plus le choix par rapport à ces leaders là Nous, ki un frère qu'il pleuve ou qu'il vente nous koy jàppale muy makissal le président de la République donc comme nous koy mobilisé, nous avons nous avons noonu ce matin. def voilà jeunesse bi gis vote vote bi et tout euh, aussi peut-être ne euh, le vote est un acte citoyen Nous da ngay Nous sa voté, di il faut il faut voter il faut faire son choix euh, moi pour moi quel que soit le choix il faut le faire comme ça on euh, a un cadre de Yo donc quand nga l'essentiel c'est de choisir en tout cas ton président mais aussi euh, je les exhorte à respecter aussi comme Nico Président président fait aussi euh, la vérité des urnes parce qu'en fait urne, l'Union tous les Sénégalais doivent respecter et quel que soit le résultat dañ ko respecter. Euh, man man lolo, loolu vraiment je pense que peut-être waxu politique là, rek parce que aussi euh, ñun fii xamante nañu Fatick donc xaw ma mais Fatick on se connaît euh, man j'ai des militants qui ont ni su ma leen waxee voté leen fii foofu la ñuy voté may sami taxawoon fii am na ñoo bu leen voté ainsi de suite ainsi de suite ainsi de suite donc xam nañu à peu près ñi ñuy voteel ak ñi ñu dul voteel donc loolu pour moi jaarul kii parce que ñun dañu nekk ak population yi seq ak ñoom teraanga tous les jours quotidiennement c'est pas jour élection ngay ñëw pour jënd carte je pense pas góobu lool. ñu gën maa xam si caane akara waaw. tey da ngeen gën ñëw waaw dañoo ñëwoon pour voter si pour élire suñu cinquième président de la république. ah yàlla damooy may waaye ma de su ma doon su fekkoon maa may sama bopp damay ñaan yàlla ñu mu dellusiwaat si loxo yu set yi fi nekkoon Macky Sall Amadou Ba rek parce que ñun ay Fatickwa lañ te dañoo bëgg suñu liggéey yi egg macha allah ndax loxoom set na am na yërmande population bi bëgg nañ ko. un site d'information sin TV nekkee fi ci diwanu Fatick andi leen lu bees tak lepp lu jëm ci sport culture éducation santé ba ci politique wala sax information ñu len di proposer ay vidéo yu muccu ayib yi nga xamantene top, fay top lepp lu jëm ci actualité TV nek fi ci diwanu Fatick togal fi région ak Sénégal Sin TV Joko jàll